daw len gaw abonné ji ci chaîne bu mag bobu di khidmatul khadim tv di chaîne bu am njëriñ ci dina rawati na ci yoonu mourid babu haqqi zawji li mooy buntu haqqi jëkkër al marati war soxna wax ma nga ci suratu an nisa la laaya ba fan fanweer ak ñent sun borom dañ goor ñi ñoy lif jigen ñi ndax yalla ci bopam mo def goor ëpp katan ëpp xel gëna mëna doxal biri wal loolu moo tax nag yàlla def góor yi def jigen tax yàlla mi gënale mo def góor gëna mat jigen ci xel ak ci doole ak ci rafet aw doxalin ay yaqumuna alayhin qiyam alwulati ala raiyati bima faddala allah ba'dahum ala ba'd wa qad faddala allah baad وقد فضل الله الرجال على النساء بالعقل الكامل وحسن التدبير ومسيد القوة في الأعمال والطاعات mu ne itam góor ñi ñoo baaxoo war jigéen ñi di leen jox can bi leen dee takk yooyu nag di leen dundal ak wadd ak dëkkal li fekk ñi doon seen soxna wala kon war naa tax ñu xam ne góor mooy kilifa mu jaal nag wax jigéen ñu baax ñi nañuy mel mu ne jigéen ñu baax ñi dañuy topp yàlla topp seen jëkkër te yàlla tax bu seen jëkkër génnee nekk fa itam ñu sàmm seen bopp bañ ko wuti def dara lu aay sambal jëkkër ja itam kër ga ak alalam jigéen ñu baax ñi ñu xam loolu yàlla leen ko sant bu ko defee ñu taxaw ca loola abu hurayra ne yonent bi woon su jëkkër ji wooyee soxna sa bëgg a jotee moom soxna sa bañ guddi googu yépp malaaka yi dañuy fanaane rëbb jigéen joojee ba bët set malaaka yi dañ koy fanaane moolu di ko ñaanal mu sori yërmande yàlla boobu dañ ne alayhi la am na netti boo xam ne ñëw na ci saxihu muslim ñëw ci saxihu buxaari mu indee ko nii ne jigéen ji bu nangu wuta dem ci jëkkëram mu joteeg moom dem soxla ko kon guddi gi yëpp malaaka yi dañ koy fanaane rëbb di ko ñaanal mu sor yërmande yàlla bu bët set ñett li bay moom dane yonent bi daa waat ci yàlla mi nga xam ne moom moom léppam ne waat naa ne su goor woyé soxnaam bëgg a jotee moom mu bañ yàlla saa borom foofu lay tàmbalee mere jigéen joojee baba xolub jëkkër ji sedd ba mu gërëm soxna sa rek li fekk loolu am yàllay mere jigéen joojee bu bëggee dugg ci addis yooyu yu defoonte bunt bi man ngaa dellu ci addis ba nga xam ne jàlloon na te numéroom tolloo woon ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom benn deux cent soixante-seize la ku ñu wax xamrul ahwas moo ne daa dégg yonent bi ci aj googu nga xam ni moom la mujj aj te tàggoo ci xeer wi gannaaw ba mu sante yàlla tagg ko fàttali nit ñi waar leen mu ne leen maa ngi leen doolee dénk jigéen ñi kenn ku ne ci yéen na leen di defal lu baax te fonk leen ngir yàlla te ku ne ci yéen nay dénk moroomam loolu ndax jigéen ñi ngeen leen takkee day mel ne da ngeen leen moom ba jàpp leen yeew kon nag buñ deful lu ko jar da ngeen leen moytoo tooñ suñ defee lu ko jar nag ngeen njëkk leen a jàmbu ci tuddukaay ya fajut nag ngeen dóor leen dóor boo xam ne du ëpp li fay nag ñi ngi nangoo wéyee ndigal moom bu leen leen jéem a lor di laytu nag naa sama soxna si nangam ak nangam bëgg am rek lay woo ko loole tax ngay lay moom daal bu fekkee ñu ngi wéy ndigal moom na ngeen leen moytoo def dara mu ne itam xam leen ne da ngeen amee seen jigéen ñi àq ñoom itam ñu amee leen àq àq ji nga xam ne seen soxna ñoo ko ameel mooy lu yàgg-yàgg seen lal duñ ko lalal góor goo xam ne neexu leen duñ bàyyi genn góor goo xam neexu leen muy dugg ci seen néeg mbaa seen kër maanaam tey sa soxna suñu ta fat ci sa kër ba bàyyi genn góor mu di fa dugg te neexu la rawante na mu dugg ci ci lalam mu ne yéen li amel jigen ñi mooy di leen woddu di leen dundal mooy di leen jox lekk maanaam daal di leen jox fu ñuy fatu di wad woddu di leen jox lekk daal loola mooy li war ci aba hurere ne yonent bi dane woon jigéen kat bu fa jëkkëram nekkee du sañ a jekki-jekki ngat nga tedd ko taggu ba may ko ci ndigal ndax su sàkkoo jotee moom fekk mu woor koor ga day nekk gàllankoor kon nag dagam kooru ngàtt nga la du kooru farata moom bala koo jigéen a woor na ca am ndigal ca jëkkëram mu ne itam jigéen sañ te dugal geneen góor mbaa keneen ci néegub jëkkëram mbaa kër jëkkëram nu may da ca am ndigalul jëkkër ja ku ko jëkkër ji ne bu mu duggat ci kër gi rek mbaa mu duggat sama néeg rek war naa fexe ba bañ ko dugalati hadith bobu ñew na ci sahihu muslim ñew ci sahih bukhari waye baat bi nga jang fi nak mom non la ko al bukhari ande ibnu umar moko net li jël ci mo ni da waxon ne kenn ku ne ci yeen nako woor ne ab sam la te bu ëllëgé faaw yalla laaj ko lam doon sam ndax taxawon na ci nam ci wara taxawé am deet ko xamni sa bop do ngay lif na nga sam sa bop cër yi juróom ñaar nga taxaw leen bañ cee mooy yàlla ba ma ngay tasee moom ndax boo léegi faaw yàlla laaj la cër yooyu noo ci defoon koo xam ne daa falu nekk buur mbaa mu jiite ay nit nga xam ne kon boo léegi faaw yàlla na ko laaj ndax taxawoon na ca loolee mu ko jiitaloonam déet nit sax bu yoree kër yorum njaboot war na caa taxaw bu baax te xam ne bu ëllëgee yàlla dina ko laaj nu mu defoon ca kër gaal njaboot ga jigéen sax bu nekkee ci kër jëkkëram nga xam ne mooy toppatoo gone yeeg alal jëkkër ja bu fa nekkut lépp bu ëllëgee yàlla da koy laaj ba xam taxawoon na ca am déet kon ci gàttal ne kenn ku ne ab sàmm la kenn ku ne na xam ne bu ëllëgee daañu ko laaj lam doon sàmm nu mu ca defoon hadis boobu muttafaqun alayhi la ku ñu dàkkintale abu xaliyin mu tudd talqub na aliyin moo ne yonente bi daa waxoon ne jigéen bu ko borom këram wooyee bëgg mom. moom fu mu foon di fekk rek na bàyyi lam jàppoon dem wujji ko donte daa fekk sax mu nekk ca waañ wa mel mu fekk mel mu nekk ca forne bay defar mburu itam na bàyyi lépp te dem wujji ko ca aajam joojee abu hurayra moo nekk li ne yonent bi daa waxoon ne su ma doon dig su ma doon wax kenn ne ko su keneen kon wax ni jigéen nay su jootal jëkkëram muy borom këram umu salaam moo nekk yonte bi nee na woon jigéen bu ko jëkkëram gërëmee rek bu faatoo daal di dem àjjana waaye nag nañ am na ko waxoon suñ tubaa ne ko soxnaam daa génn àdduna ñaanal ko xam naa ne faaw dana am lu baax ndax gërëm naa ko suñ bi ne ko yow nag ku la gërëm way wan ne ko ngërëmul jëkkër kat dara am solo ca soxna sa fekk moom jëkkër ji ci boppam am ngërëmul yàlla ba am ngërëmul waaye yàlla góor ñi ni ñal leeg nga xam ne bu togg ga baaxeeg toppatooy baax ñu daal di seen xol daal di sedd te duñ faale ndax jigéen jaa ngay taxaw ci ak yàlla am déet loolu moo tax mu doy waar mu salam moo nett yoon te bi nee na woon jigéen bu ko jëkkëram gërëmee rek bu faatoo daal di dem àjjana waaye nag nañ am na ko waxoon suñ ne ko soxnaam daa génn àdduna ñaanal ko xam naa ne faaw dana am lu baax ndax gërëm naa ko sëñ bi ne ko yow nag ku gërëm way wan ne ko ngërëmul jëkkër kat dara am solo ca soxna sa fekk moom jëkkër ji ci boppam am ngërëmul yàlla mbaa am ngërëmul waaye yàlla góor ñi ni mel léegi nga xam ne bu togg a baaxee toppatoo baax ñu daal di seen xol daal di sedd te duñu faale ndax jigéen jaa ngay taxaw ci àq yàlla am déet moo tax mu doy waar mu xaas nee na jigéen bu delor borom këram fii ci àdduna te fekk mu bokk ci waa na moom jëkkër joojee bu ko jigéen di déggul tam na xam ne jigéeni ajana yi koy wax naa ko waaye ji bàyyi si jëkkër ji ngay lor gan dong la fi yow fii fi nun la jëm si àdduna rek leen boole waaye fii ci nun la jëm si ko déggee bu ko déggut jigéeni ajana ñu koy wax loolu ku saa moo nett la yonent bi nee na woon li mu bàyyi ci gannaaw ci lu mën a lor góor daal bari na waaye jigéen a ci raw ni jigéen mën a lore góor daal moom gisuma lenn loo xam ne sama gannaaw mën na naa yàqale góor ñi maanaam daal ni jigéen mën a yàqale góor daal leneen lu ko mën a yàqale sama gannaaw amut day wax ci bunt bi boo xasee bay joxe ngir yàlla ngay seet la nga gën a bëgg ci sa bopp mu gën a baax ci sa alal nga di ko joxe te bañ a seet la yamaay nga xam ne bëggoo ko rek nga di ko joxe nga ci alu himran laye ba tolok juróom ñeen fuk ak ñaar mu ne bu ngeen bëggee am ngeerumul yalla ak aljana da ngeen di fekk la ngeen bëgg te xir ca waxul ngeen joxe lepp waye ngeen joxe ca ngir yalla mim ma la andi néewul xataa tunfiqoo maa tuhibboona mim ma rek la wax seen ala jete ngeen fagu ko mba la ngeen bay mu genn ci suuf ci yeneen seet la ci gëna ngeen di ci génne asaka bu ngeen di génne asaka di ca saraxe bu ngeen di saraxe di ca dimbalee ngir yàlla bu ngeen dimbalee ngir yàlla waaye bu leen fekk la yemaay yemaay ngeen di ko joxe di ko leen ko bëggoon faye bor du ngeen nangu bu leen amee loon bor bëgg leen koo faye ngeen bañ ngeen fekk loolu di ko joxe nag te am la baax loolu nag bu dee ci sharin rek moom boo dee génne asaka am lu gën a baax am lu yemaay am lu digg doomu dañ ne bo génnee ci la gëna a nga ëpp ëppale tiyaba waaye nag sañ ngaa génne ci la digg doomu la yemaay moom sañu caa génne la gëna a baax it génne ci waru la la digg doomu mooy waru gar waaye nag nga seet la gëna baax génne ci moom moo gën daañu nangu sax bu doon ak jur amoo yu may ya, yu tànneefu nga wuti yu digg doomu joxe te téye sa yu tànneefu ya, yi ya. waan nga joxe ci yu tànneefu yooyu mooy gën anas moo nett ne ku wax aboo talxata walan sar yi nekkoon madina moo ci ëppale woon ci wàllu suuf su am ay tàndarma suuf yi amoon nag bu mu ci gën a taamu mooy bay tudd bay raxaawu jardin la woon boo xam ne dafa jàkkaarloo woon ak jàkk yi madina yi yonente bi daana ci dugg sax di naan ca ndox mu neex ma ca nekkoon anas ne bisun borom ne bisun borom ne bu ngeen am mukk ngërëm ak lu ngeen di seet la ngeen gën bëgg ci seen alal di joxe ngir yàlla bi yàlla waxee loolu aboo talha daa ñëw ba ci yonante bi ne ko dégg naa li yàlla wàcc ci yow ne lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuxibboon taman seet naa ne sama àll li ma ci gën a taamu mooy jardin bee tudd bayra xaaw xamal ne kon na def naa ko ci yàlla joxe naa ko ngir yàlla di yaakaar yàlla nangul ma ko te fay ci tuyaaba yow nag yaay seet fu la yàlla wan rek nga féetale ko fa yonent bi reylu lol lim def ne baxin eskay eskay batu yem la ak magal ne ko lol alal la jo xamne do recc mukk la nga ci am ci bénéfice moy ci tuyaaba yalla alal la jo xamne day jarignam lepp ci lay delu ci ne ko dégg na li nga wax waye nak say bo set say mbokk yi la jage nga jox len ko abo tal xane ko non lay def de ke non la def dafa dal di fek ay jege ñaaleem ak ay doomi bayam mu dal len koy seddelé di wax nak màndarga yi ñu xamee ne jaam bi daal yàlla sopp na ko ñu bëgg nag nga xam màndarga yooyu te di ko jéem ci góorgóorlu ndax nga bokk ci yàlla sopp nga ca suurut al imran bok na ci li tax yàlla sopp la mooy topp ci yonante bi gëm yonante bi te top. sunnaam ndax moo ne ko nee su ngeen soppee yàlla da ngeen may topp man mi yàlla yoni ci yeen bu ngeen ma toppee rek yàlla seen borom sopp leen ba noppi jéggal leen seeni bakkaar nga ca saaru maida laay ba tolloog juróom ko ñeent dañu wesoon nag ca ali imran nga tolloo nag fanweer ak benn suñu borom daawoo ñu gëm yàlla ne leen koo ci xam ne génn nga ci lislaam yaa xam yàlla moom fonk na diine ji ba dana andi ay nit ñoo xam ne moom yàlla di di bëgg ñu bëgg ko seen melo nag mooy dañuy nooy ci seen bokki julit te jàgg ci ñu weddi yàlla dañuy jihaat ci yoonu yàlla nangu caa def seen bakkan ak seen alal te duñ ci ragal jenn yaraange loolu nag ngëneelu yàlla ku ko soob mu may la ko abou xoree mo net li ne yonent bi daa waxoon ne Sabarom borom neena na képp ku noonu teg sama xej sama soppe man yàlla xej yàlla yi mooy allazina amanu wa kanu yattaqun, ala in awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxsanun te mooy allazina amanu wa kanu yattaqun. dañ rawante ay degare waaye ku gën te ragal yàlla rek bokk nga ci xej yi donte bi ne borom neena képp ku teg sama xej yëgal naa la maa ngi xare yow rus wax ma la déclaré guerre rus wax jamono ji ku noonoon teg sama xeej daal néeg ne maa ngi ci kawam man lay xareel sama jaam nag lépp lu muy def ngir bëgg maa jege na xam ne def laa farataal ci moom moo ma ko gënal li ma farataal ci moom lépp lu mën def rek bëgg maa jegeñ def loola moo ma ko gënal gannaaw bu defee farata yi ba nopp nag di bari li nga xam ne ay naafila la maanaam xeet yi ma sopp te wéraluma ko ci moom bu ko dee bari rek bu tee bàyyi damay mujj daal di koy sopp ngir loola bu tekki ne su ma ko soppee damay mujj doon noppam bi nga xam ne ci lay déggee doon bëtt mi nga xam ci lay gise doon loxol nga xam ci lay ngëbee doon tànkam ma nga xam lay ma may ko bu musal ko di koy musal mu ne su ma ko soppee damay doon ak noppam doon ay bëtam doon loxoom doon tànkam danañ mooy jàmmel noonu àgg foofu ci yàlla day mujj léppam di yàlla ay noppam lu yàlla gërëm rek la cay déglu ay bëtam lu yàlla gërëm rek la cay gis ak loxoom lu yàlla gërëm rek la cay soppandiku ay tànkam lu yàlla gërëm rek la cay dox jëm ca léppam day ku doon yàlla daal hadis bobu rawahul bukhari abu hurayra dane yonent bi da waxone ne sa borom day jambu bu sop ndax gis na mu gëm ko te ragal ko dalil ay nafila ba bok ci ay sopem day wax jibril ne ko jibril man sa borom day diw dama ko sop yow nak sop ko yow itam su ko defé jibril sop jam bobé ba nopi nak jeptane ci wa asama ne len su borom neena day jiw da ko sopp kon yeen wa asaman sopp len ko su ko defee wa asaman dal sopp jëm jojé ci kaw lolé yalla may ko ñu nek ci kaw suuf ci seen xol set dal di koy nangul ñoom ñëpp maase ci bëgg ko muslim moom ñim lé da nga wesoon muttafaxun alayhi la nak mom net ci muslim la yonte tib dañ won sa borom day bu amé kum sopp ci jaamum ñi day woo jibril na ko jibril sama jaam sàngam dey dama ko sopp kon yow jibril sopp ko jibril daal koy sopp topp ndigal yàlla bu nekk nag jéetaan ci asamaan ni leen saa borom nee na daa sopp diw kon yéen itam sopp leen ko waa asamaan daal sopp jëmm joojee yàlla daal defal kookee waa suuf nangul ko maanaam ñu ragal yàlla xam lu baax bëgg lu baax di ko nangul ak am ak moom jàmm safaan ba mooy bu yàlla bañee ab jaam ngir lum jëf mbaa lu melowoo day wax jibril ko sama jaam sàngam dama koo bañ kon yow itam bañ ko jibril daal di koy bañ ba ràpp nag jiblaan ci asamaan ne saa borom ne dafa bañ diw yéen waa asamaan kon bañ leen ko ko defa asamaan daal di koy bañ bañal googee feñ ci kaw suuf ba ñu baax ñepp dal dikoy bañ soxna aysa yoon yonent da daa mësa yoni am mbooloo ñu dem di xare ji mu am ku yebal ko xam bo leen di jité faaw de faaw de lan am ku leen di jité ko ne bu julli jotee mo leen di jité julli ko saxoo nag ràkk bu muy birel dal daa ñu dégg moom mu tëjee ko khul wallahu ahad fu ko jangul moom dong itam mom faaw mu jang ko ci rakka ba ba ñëwee ba ñëwee nag bay ko ci xare ba xoyonte bi bu ne leen dañ koy laaj ba xam lu tax mu ko daan def ñu laaj ko mu ne dama gis saar yi di wone melaw yalla melaw mat yi sax ci mom saar wa saxal la mank ci mom mang koy dakk tax ma sopp rek saar wo bi ne leen ne len ko sa borom ne sopp na ko ngir lolu sopp gi mu sopp saaroo ba di ko jàng tax na mom itam mu sopp ko e wax ci buntu bi ni wara lor waju bax wala lor ku new doole wala lor ab miskeen borom dane ñi ñeme yalla ba di lor ñiko gëm mo xam ñi lor goor lañ da jigen te ñi lor def ñu dara leen di yore du xeyna na nag tasa boobu def ñu dara ñu wara a defe loola ñu ñen tooñ rek leen lor mané ñoo ñoom ñu day ñay def loolu day ñu yek ne dural nañ ñooñee tooñ leen te yam nañ ci bakkar bu reere rëy kon ma nga ca surat lahsaab laaya ba tombek juróom ak juróom ñett kon ma nga ca suratu duha mu ne yonante bi Bila yalla baxé defal la li ab jirim kon bu ñëwé ci yow nang ko dimbali yërem ko waye bu ko jema tek lu mënut japp jirim la amul rek ku ko taxaw dal di bëgg a bu ko def ku ñëw di am tam bu ko gëdd bo amul loko ko saraxit wax ko lu neex ci xolam ne ko demul bu ëllëg tay de nangam ak nangam waye bu ko gëdd jundub ne yonent bi da waxoon ne kep ko xamne ne farlu nga ba julli suba rek ene ne yalla mo warlu sak yaa nga ci wala rew mune nak kon ab julit bo xamne ne farlu na ba julli suba da ngeen moyto jotey ak mom dara ndax ndegam yalla gaddu ay mbiram mom gaddu wala rew a ah, yalla kat ko xamne ne gaddu ko bo moytu ko bañ ko laal ndax lu yàlla gàdd ku ko jege mu daal lay jàpp te ba la jàppee daal lay këpp ci sawara nga daanu jaag sa kanam te wane ne ku xas julli suba rek ba yàlla féetewoo mbiram daal lu ko moytoo laal ci genn wet ci tooñ